exprès confusion dafa am société bu tudd Petro Asia bu am bu nekk ñoom ñu def Petro Asia donc loolu lépp ñu wax ko fi teg fi ay lu leer boobu léegi lu tax justice jógul justice warul xaar pour président de la république jox ko ordre rek président war na ko mën a jox ord bu bu ko neexee waaye dafa war a autosaisir ana justice su Sénégal ba BBC doon yëg mbir mi ba jóge Londres ba ñëw ba fii donte ni sax ñu ñoo waxoon BBC donte ñu ñoo soufflé BBC. mais ba ñu soufflé BBC ñu gis BBC di dugg di génn suñu kër yi ñu ñuy surveiller te ngeen saa waaye courtier bi démissionné l' autre jour ba mu njëkkee def conférence de presse dafa ne waaw Sonko ak Thierno Alassane Sall wax parce que ñoom parce que gis nañ leen ñuy dugg suma kër